chai. Abzuru. Chai mako chai. Na ngote chai. daaw bi ma ñëwee laa ko tàggu daaw lañ tàggatoo biñ gàmmu say mu ne ma wax ne suma mag ja waxoon na ma ko waaw daaw yooyu rek la doon waxee di nga xam ne daaw daaw la ma tàggu ma ne kii di day fay dafay dee dañ ne la de mais la taas ci barkeem barke baay kii moo ñaareel màlle kon soixante-dix-sept ans ñaari sept la rek sept sept màlle duur mbóot la de kii gaynde la borom sañ-sañ la. li mhm. man boo xam ne. bi tey xam naa ko xam na ma. keroog ca morgo ba la tëdd ma fekk ko fa mu ne. Ah! taxaw fa mu taxaw yëngatuwut. ne pat ma ñëw laal déem bi. laal ci suma dënd bi. loolu ma saam nag heure ma ko jubaan rek jóg na. dalal na ma xar na groupe jox ma moo tax maa ñëw di yéey groupe excès si loolu boo ñëwee naa ko maa ngoo yéey de waaw ku yéeme la dëgg la dëgg la bi tey la dëgg la fii daal bërëb la dëgg la dem baax na